rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala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 rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l-akhirati hasanatan wa qina azaaba naar rabbana hab min azwajina wa qurrata ahyunin waj'alna lil muttaqina imama assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit ji tedd yi mbokki gox yi ñu baaxoo di ñu topp fii bi bitim réew noo ngi leen di siyaarewaat bu baax kàddu gaa ngi bee ko fii ci Touba Kaolack ak seen mbokkum taalibe Ibrahima Seck di del ci waat ci xasida sëriñ tubaa yi ñu baaxoo di ko ànd ak yéen ñu indiwaat geneen xasida ci xasida sëriñ tubaa yi te mooy waskuroo laaxa fi ayaamin maxdudaat ndax waxoon nañ leen ne mboolem jamono yu ne rek dafa mel ni day dox ci actualité léeg-léeg moo xam yegg ci gàmm moo xam ñu yegg ci euh, rajabul fardi moo xam ñu yegg ci sool xixda ak weer wu mu ci mën a doon ak wala sol hijja dañuy indi xasit yi nga xam ne sëñ bi da ko cee taalif di ko jàngat di ko jàngat di ko jàngat di ko nafar nga xam ne nafar lay nekk waaye doona loo xam ne sax lu ñuy jàngale la ndax xasit yi moom sëñ bi rek xam lu mu ci jublu waaye dañ koy nafaralante ngir ñi nga xam ne xamuñ ko woon man ko cee xamaat man cee yokkoo seenu xam-xam ak seenu déggin ndax am na ci loo xam ne moom déggin bi moo koy laaj waaye ay baati arab yi rek la ñuy leeral ndax yonent bi dafa wax ne man yuridullahu bi xayran yufiqu fi diine yàlla de bu namee ci nit aw yiw te koy déggaloo diina kon nit ki dana jàng téere yëpp ba woon na lefi waaye du dégg nit ki dana jàng tuuti gën a dégg ku jàng téere yëpp kon noonu rek la mel moo tax li baat yi rek la ñuy tekki waaye dëgg-dëgg mu wax naa bi moom ak la ci sëñ bi dëxañ loolu moom rek moo ko xam kon bu ko defee loolu itam ñu bàyyi waale ko xel ñu indi xasida sëñ Tuubaa gi tudd waskuroo laaha fii ayaamin mahdudatin moom la tëggee xasida gi nga xam ne ci weer wi la ko bind mooy waskuro laa fi ay daatin la muy tekki mi ngi ci sóorutu albaqara te mooy suñ borom nee na waskuro laa fi ay marudaatin mooy fan yi ñu xam muy fan yoo xam ne yu ñu xam la waaye yu ñu lim la ngir néewam ndax arab moom lépp lu néew rek da koy lim mooy ñetti fan yi nga xam ne ci lañuy ñuy sànni jamra jamratul xaq ba mooy foofee ca min nan gannaaw ba nga xamee ne bisub tabaski gi wëy na ñetti fan ya cee toppaat muy ñetti fan yooyee moom lay suñ borom di wax foo gisee ci alxuraan mu ne ayaamun maxluumaat rek wala ayaamun maxdudaat rek mu ngi ci jublu fan yooyee xalaa kulli haal ak lu mën a doon rek xasida goog nag sëriñ bi da koo tëggee waskroola fe amin maxdudaatin ñi gën koo xamee ci wajaxtu kulliya saa xurbin min allahi xillan wahibban wasaa sawqin ilallahi bu ko defee kon sëñ bi tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim mu ne bismillahi maa ngi tàmbale sama xasida gi ci turu yàlla arrahmaan yi buur bay xéewalaakoon bépp ci àdduna arrahim buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira mu ne allahuma yow buur bi maa ngi lay ñaan bi xaqi wàcci laahi xaq jëmu jëw yàlla taala jay aji kawe alkarimi jay aji tedd li ma lay ñaan mooy salli maa ngi lay ñaan nga dolli xéwal wa sallim ta nga wa baarik ta nga dolli ala man ci kaw yonente bi nga xam ne wàccee nga yow yàlla ali ci moom xaw xawluka sa wax ji nga wax ne waskuro de leen tudd allah yàlla di ko fàttaliku fi ayaamin ci lu bari fi ayaamin ci bis yi ci ay bis mawdoo daatin yëdu yuñ lim ngir niiwaay ndax arab moom lépp lu niiw rek lépp lu ñuy lim rek maanaam lu niiw la nga xam ne ngi ci jublu maanaam bis ba ñuy tëbaski bis boobu yow mu moxloom la waaye du yow max maxdoot bis ba ca topp nag ba ca toppaat ba ca toppaat nga xam ne fukki fan ci weeru tabaski sil hijja ak ñeent ñeenteel ba boobu bis nag bis la boo xam ne maxduud la maanaam bis la bu ñuy lim waaye bokkut ak yow mu maxloom yow mu maxloom mooy bisu tabaski waaye nag dañ ci sànni jamra waaye nag duñ ko kontaale yow mu maxloom lañ koy wax waaye nag bu dee nag fukki fan ak ñeenteel ba kooku yawmul maxduud la maanaam bis la bu ñu limaale ci sànni jamra maanaam tey boo ko sànnee jamra dañ ko limaale ndax moom nga mujjee waaye nag bis bii di bisu tëj kooku yow mu maxloom la kon ñoom ñaar foo jàngee ci alxuraan mu ne yow ma ayaamun maxloomaatin wala ayaamin maxloodaatin jàppal na ñeenti fan yooyu lañ ci jublu ñetti fan yooyu gannaaw ba xam ne ne bisu tëj ki góy na xam ne ñaar yooyu rek ayaamun maxloomaatin ayaamun maxloodaatin bis yooyu rek lañ ci jublu moom la sa njëkk a tëggee bi mu tàmbalee ci turu yàlla nga xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam digleem moom la jëfandikoo yonente bi nee na bépp mbir mu ngeen di tàmbali tam rek neen ko tàmbali mi nga xam ne muy xewalaa kon bépp mi ndéef ci àdduna waaye tey ajjëram ku ko soob ci àllaaxira nga xam ne arrahmaani yàgg nañ ko nettali mooy ci adduna rek la xaj waaye xajul yowmal xiyaam rahim yi itam yowmal xiyaam la xaj waaye nag xaju fii ci adduna moo tax gis nga rahmaan tëgg ak faalaan bii tëgg ak faal nga xam ne nit ki léeg-léeg ñu ne xaddabaan wala farxaan wala sakraan mandina wala diw dee mer na ñëkkal na kar kanam nga xam ne loolu du ci dëkk day yàgg rek mu dëñ yàlla itam ñëpp lay xéwale ala ahiba yi wax daa yi ñi ko gëm ak ñi koy wedd ñëpp da leen di bokk di leen xéwale fii ci kaw suuf kon ñoom ñëpp arrahman ñëpp ci yem léeg-léeg daa daa ko faral di wax lu bari mooy léeg-léeg nga gis ñaari borom tool kii gëm yàlla kii gëmul yàlla waaye ki gëmul yàlla gën a meññi la tool gën a saxla tool loolu nag nattuk suñu borom la tabaraka taala ngir mu xool jullit bi fan la toll ci bëggu borom comme ni mu ko defoon ci yàlla Ibrahima gannaaw bi tambali tàmbali bismillahi rahmaani rahim mu ne ko yow yàlla maa ngi lay ñaan ci xàq sa jëmm ji yow sa jëmm ji nga xam ne mooy jëmm ji kawe waaye nag tey aji tedd maa ngi lay ñaan li ma lay ñaan mooy solli maa ngi lay ñaan nga dolli xéwal wa salim da nga dolli wóolu wa barik ta nga dolli barke ala man ci kaw yonente bi nga xam ne ansalta wàccee nga ali ci moom xawlu ko yow yàlla sa wax ji nga wax ne waskuro dee leen tudd allah yàlla fii ayamin ci bis yi maxdudaatin yët yu ñu lim ngir niiwaay nga xam ne arab fu mu waxee bis yu néew rek bis yu ñu lim mooy bëriwul ndax ñetti bis yooyu la ci jublu gannaaw ba nga xamee ne bisub tabaski wëy na bis ba ca topp ba ca toppaat ba ca toppaat ñett yooyu nga xam ne mooy fan yu ñe sànni euh, fan yu ñe sànni jabar ca min fan yooyu la ci léegi nag sëñ tubaa dafay jël waaw gi ne wajaxtu kulliya saa qurbin minallahi noonu la koy toppee ba taslimu baqin ala xayril wara wala xisbin loxo wala mustaqilillahi nga xam ne ma ngay daanoo ci euh, fii ayaamin tin muy taawu néegu te muy taajoor goog ñi gën koo xam ci taajoor muy taawu néegoog moom lay wax ne taslimu baax na ala xeyril wara waxala xisbin loxo wa alal mustaqilillahi kon noonu rek la demee kon ñi ànd koog yéen ci dawal bu gaaw rek allah mu ne yow maa ngi lay ñaan nga dolli xel gu ànd koog mucc waaye nag gu ànd koog barte ci kii nga xam ne wàccee nga ci moom ca wax ji nga wax ne waskuro laa fi abi maxludaatin mel ne dañ ko laaj tur yi nag mu ne sayidnaa kooku mooy sunu sang bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turo mooy muhammad waaye nag salaatu kooku ali na ñëw ba ci waa këram wa sax bi ak saabaam kama jaxalta comme ni nga defee yow yàlla xaasil abyaat yi bayit almaxoosa yedd yu ñu tibbee yu ñu tibbee mooy yu ñu jëlee rek min hurufihi mu bàyyi ko ci xaraf yooyee te mooy waskuroo laa fi am maxdudatin ahaba muy muy li nga gën a sopp illayka jëm jëm ci yow maanaam li jëm ci yow ay xeeti jaamu yàlla ay xeeti cant yépp maanaam yii na bokk ci yi nga gën a sopp wala gii na doon gi nga gën a sopp maanaam mu jëm ci yow ci ay xeeti mbinde ak yu nu mel mu ne aabu mu doon li nga gën a sopp ili ka jëm ci yow yaa akram yow mi nga xam ne yaay yow yaay aji tedd ji waaye nag wa ila rasulika ak jëmee ci sab yonent bi maanaam yonent bi tam ab yaat yi sëñ Tuubaa di taalif muy xasida gi maanaam yonent bi na doon li mu gën a bëgg li mu gën a sopp ci xeeti ak cant ak ak ak tawhid mu ne xëlli yàlla na doole nekk ci yonent bi salaamaaka sa dolli xéewal ak mucc yow yàlla waaye nag bi alihi ànd ko waa këram wa sax bi ak saabaami min xayri ak lu dul ñoom sax minal abiyaati ci bayit ci bayit alati yi nga xam ne xiilaat waxee soon na ko xablaha ci lu jiitu yaa sakoor yow mi nga xam ne yaay santaakoon bi mu ne yow yàlla gannaaw bi nga xamee ne julli na ci yonent bi alayhi salaam comme ni mu baaxoo di ko defee ni ko yonent bi diglee ci addis waaye yàlla njëkk koo digle ne yaa ayyuhaa allaziina aamanuu salluu alayhi wa sallimu tasliiman yéen ñi gëm di leen julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam tey mu ne yow yàlla nag comme ni nga defee yii bëyit mu mu doon bayit yoo xam ne dañ ko tibbee ci xaraf yooyu nga xam ne moom jëmmi suñ bi di ko tibbee ci xaraf yi waskiroo laa fi al maxdudaat bi mu ne yàlla lay ñaan nag mu def ko maanaam xasida ci jëm boppam muy li yàlla gën a bëgg maanaam loo xam ne dañ koy jaamu yàlla di ko cant di ko jëmee ci yàlla maanaam yàlla xasida gi na ko gënal na gën a bëgg na ko gën a bëgg waaye nag yonent bi itam na ko gënal na ko a sopp ko gën a bëgg mu daal julli ci yonent bi ne yàlla na doole nekk ci yonent bi dolli xéewalug yàlla ak dolli musalam waaye nag moo ki waa këram ak ay saabaam yëpp waaye lu dul lu dul xasida gi sax euh, ci ay abyaat yi nga xam ne waxoon naa ko ci lu jiitu waaye nag ma ko yàlla nga xam ne lépp da daan doon def rek ci yàlla di ko wéetal di ko def tawhid xëyti bàkki ak i cant nga xam ne xasida xasida ak tawhid la ak xasida ak cant la tawhid moo ci fees dell waaye nag ak xasida ak cant moo tax ne min xëyri yi ak lu dul lool sax minal abyaat yi ci ay abiyat alati ya nga xam ne xiilaat waxee son na ko mooy waxee son na ko mu jëmi sëñ bi xablaha ci lu jiitu yaa sukur yow mi nga xam ne yaay santaako mi nga xam ne ay bayit yoo xam ne waxo waxo waxoon naa la ko yow yàlla di li ci cant euh, di la ci bàkk di la ci kañ lu dul yii sax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga dolli xiwul ak mucc waaye nag na doon xasida goo xam ne mooy mbooleem ay cant yuñ lay def di ko jëmale ci yow yii na la ci gënal waaye na nga gën a sopp xasidi gi waaye yonent bi na gën a sopp xasidi gi xam nga gis na xasida gi xasida gu ama am solo la waaye xasida gu mucc ayib la waaye xasida la goo xam ne xasida gu yéeme yéeme la buñ koy jàngat ay mbiram xasida gi nag fii la tàmbee mu ne wajjaxtu kulliya saa xurbin min allahi xillan wa xibban wa saa sawqin ilallaahi nga xam ne eh, dafa tàmbale rek jox yàlla tawhid gu mag sëkk ndax xasida yi tàmbalee wajjaxtu bëri nañ lu demee ne wajjaxtu kulli lil wa doori sammadi wajjaxtu wàcc li man takrimoo baanaa ak wajjantu gi noonu nga koy toppee ak wajjantu euh, wakkaanaaxan wajjantu kulliye bi am din wa sukóor sëñ tubaa li mu taalif ci xasida yoo xam ne da ko tàmbale ci wajjantu rek kenn xamu nuñ toll waxuma laan nag yi muy yi muy muy yi wax ci biit ay wajjantu waaye nag yi nga xam ne da ko tàmbale wajjantu rek xasida yoolu kenn mën a koo lim moo tax mu ne wajjaxtu jooyal naa muy jëmale na mooy li yonti yaa Ibrahima waxoon ne inni wajjaxtu wacciya li la ci fattara samawati wala anifan wa ma ana min musrikin wajjaxtu mooy kuy jox yàlla tawxid la mu moom mooy koo xam ne la yàlla moom yëpp jox nga ko la yàlla moom yëpp jox nga ko moo tax ma ne wajjaxtu jëmale naa kulliye sama lépp saa xor bin mbir may borom ak jaamu nag minallahi yàlla waaye nag xillan ma doon ab xaritam wa hibban doon ab soppem waaye nag wasaa sawxin may borom ak cofeel nag may borom ak cofeel ilallahi jëm ci yàlla ndax jaamu yàlla gu am guu ca jaamu yàlla ga moo ca gën a féete kaw moo ca gën jaamu yàlla gooy def maanaam am sawxu nga xam ne doo am doo am benn cax nga ku du bëgg sa borom tabaaraka wa taala kon bi mu joxe yàlla lépp wane na day jaamu yàlla rek waaye nag doon xaritam ndax yàlla damay faral di wax ne xaritu Ibrahima la waaye nag buntu xarit yàlla tëjut ko ñëpp la ko tijjil ka jaar fa Ibrahima jaaroon rek suñu borom jàpp na la ab xarit buntub soppi itam yàlla tëjut ko ku jaar fu yonent bi jaaroon rek doon nga soppeek yàlla kon ay bunt lañ yoo xam ne yàlla mi ko doon maye ba léegi mun ngi koy maye kon sëñ Tuubaa dafa doon xillu doon hibbu muy ñaar yëpp léegi-léegi mu ne yonente bi sama xarit la sama soppi la léeg-léeg mu yàlla sama xarit la sama soppi la waaye bu ne alxabdu moom ci yàlla rek lay dellu kooku moom yàlla rek bu ne alxadim ci yonente bi nag waaye bu ne alxalilul hibbu kooku moom day eh, yonente bi mën na ko am yàlla mën na ko am nga xam ne alabdul xadim moom dañ koy séddoo kii xadim gi la moom mu yonente bi alabdu gi yàlla waaye nag al eh, alxillu ak hibbu moom kooku kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñoom ñaar mën na ko am moo tax ma ne wajaxtu jëmale naa kulli sama lépp saa xurbin mbir moo may borom ak jaamu nag minallaahi yàlla waaye nag xillan ma doon ak xaritam wa hibban ak soppam waaye nag wasaasoo xin may borom ak cofeel nag ila laa jëm ci yàlla nga xam ne léegi nag euh, caf ngay jaamu yàlla moom la am nga xam ne du ma am benn yëg-yëg du ma am benn bëgg du ma am benn xemamteef ku dul yàlla rek ci yàlla laa bee ko waaye ci yàlla rek laa jëm kon nag yàlla képp ku ñëw te yawma alastu bi rabbikum la nga signé woon mooy da nga jaamu balaa ankay boo wàcce ci suuf waaye nag ga wàcc suuf rek jaafu la neex kon nag minallahi xam ngeen ne sëñ tubaa moom ku nekk xam ne ñëpp ci yàlla lañ bee ko waaye sëñ tubaa moom bi mu ne coow ci kaw suuf rek dafa jël léppam jox ko yàlla nam ko waxee ca euh, xasidaam ko ci ko madu foo seeni ca xarafu jaram yu bëri yooyu mu ne xillan wa saw wa saasawxin ilallahi mu ne allahu akbaru mima kuntu afxalahu wa lastu axsa wala arjo si wallahi mu ne allahu yàlla akbaru aji màgg la gis nga tawhid gu may jox yàlla mi ma ci lépp loo xam ne ku nekkoon naa afaluhu di ko def walastu man sëñ tubaa de déet man sëñ tubaa axsa may ragal euh, ku dut yàlla waaye nag wala arjo du ma yaakaar itam si wallahi ku dut yàlla walastu déet man sëñ tubaa axsa may aji ragal si wallahi ku dut yàlla waaye nag wala arjo man sëñ tubaa déet ma yaakaar itam si wallahi ku dut yàlla bu la neexee itam nga jël firi moom mu ne yàlla de ku màgg la yàlla de lépp lu ma doon def rek ak fu ma ko mën a defee rek seede na ko lépp lu ma mën a def rek nga xam ne loolu xeetu toroxlu la euh, xam ne ne yàlla moo sañ lépp jàmm bi mu juddoo ba ba muy xàmme ba muy doon mag lépp lu lu fi jàmm bi mos a def suñu borom xam na ko seede na ko fekkee na ko lépp mu ngi ko tiim nga xam ne xab dan qadiman wala mu xay minu saahidu yàlla dafa jàkkaarlu lépp tiim lépp moo tax ma ne yàlla de dëgg-dëgg ku màgg la mbooleem lu ma mos a def yëpp yàlla gis na ko xam na ko lépp loo xam ne nekkoon naa di ko def ndax xam ne lam ci jublu rek mooy yàlla gis na ko waaye dane allahu yàlla ak akbaru aji màgg la loolu xeeti bàkk la ak ak ak ak ñeewantu ci kanamu borom di toroxlu ci yàlla ne yàlla de ku màgg la bi maa ci lépp loo xam ne kuntu nekkoon naa afan loo di ko def waaye man sëñ Tuubaa de walastu déet saa may aj ragal si wallahi ku dul yàlla waaye nag wala arju déet may yaakaar si wallahi ku dul yàlla bayit yu demee ni mu na fu mu koy wax ci bayitam yu bëri bari di wane ne moom dee ragalul ku dul yàlla waaye du yaakaar ku dul yàlla waaye du jàmbat ku dul yàlla moo xam ak tumurankem la moo xam ak doodem la moo xam ak toroxlu la lépp yàlla la koy jox waaye du ko jëmale ci benn bindéef bindéef mu ne sikri wa sukri wa rilwaani wa mahmadati bil xalbi wal jismi wal axlaami lillahi mu ne sikri sama tudd yàlla wa sukkur ak sama cantu cër wa ridwaan yi ak sama ngërëm wa mahmadati ak sama cantu xol bil xal bi nekk eh, wa wa mahmadati ak sama cantu làmmañ bil xal bi nekk na ci xool bi wal jismi ak jëmm ji wal aqlaami ak xalima yépp lillahi ngir yàlla képp sikri mooy bil xal bi wa sukkur yi nag jismi mooy yaram bi aqlaam nag mooy mooy mooy di delloo yàlla njukkal eh, maanaam xalima gi muy bindee loolu ak cant la koy ak cant la koy tuddee moo tax ma ne sikri bil bi wa sukri wal jismi wa ridwaani wal aqlaami lillahi wa muhammadati mu ne sikri sama tudd yàlla wa sukri ak sama cantuk cër wa ridwaani ak sama ngërëm wa muhammadati ak sama cantuk làmmañ bil xal bi nekk na sama xol muy tudd ga wal jismi nekk ni sama jëmm muy cant ak cër ya wal aqlaami nekk na sama ngërëm muy xalima yi moom lay delloo yàlla di ko gërëm di ko di ko njukkal nag di ko cant rek te lépp dama koy def rek ngir jëm yàlla mbokk yi xool leen fu ne béy bi nu mu feesee dell nga xam ne fu ne wax na ci soxlaam wax na ci euh, li tax euh, lan mooy objectif am moom jëm Sëriñ Tuubaa zikri wa sukuri wa ridwaani wa mahmadati bil xalbi wal jismi wal aqlaabi lillahi béy bi dafa fees dell ci wàllu balaaxa waaye rafet waaye nag fees dell ak tawxid boo ubudiyatu nga xam ne jël na léppam jox yàlla moo xam heure bu ne rek mu ngi tudd yàlla heure bu ne mi ngi sant yàlla di def effort di jaamu yàlla eh, heure bu ne yàlla nga koy jox ay xéewal heure bu ne mu ngi gërëm yàlla waaye mu ngi sant suñu borom tabaraka taala ci cantuk xol ak cantuk cër ci lépp ci ak cantuk jëmm waaye nag di ko cant di ko jaare ci ay xelimaam nga xam ne tabarakal xasida yi rek la ci jublu waaye majas la mu ne sikkiri sama tudd yàlla wasukuri ak sama cantu cër wari diwaani ak sama gërëm wa mahmadati yi ak sama cantuk làmmañ bil xal bi ànd ko sama xol muy nekk na sama xol muy tudd ga wal gis mu jëmm ja nga tabarikalla wa sukkuri wal gis mi nga xam ne noonu la ko ràbbalante wal gis mi ak jëmm ji wal aqlaami ak xalima gi yëpp lillahi ñeel na yàlla di ko tudd di ko cant di ko kañ di ko bak guddi yi ak bëccëg mu ne kulli li rabbiya fii sirin wa fii alani wa lastu asalu xayra naafi allahi nee na kulli sama lépp lépp lépp li rabbi ñeel na sama borom gis nga na ko feddale Euh, ci sariya la fii sirin moo xam ci xaqiqa la wa fi alanin wala ci sariya bu dee sirran mooy ci xaqiqa mooy biir gi nga xam ne yàlla moo koy atte nga xam ne nit ki tey mën naa julli ñu ne jullim baax na fekk am na lam def mu ngi mel ne man ak yow tey ñi dend ñiy julli ma jël ab dix mille ko sama poos léegi xam nga fi ne ñun ñaar ñëpp julli nañ waaye biñ jullee ba ci digg ba da ngaa jël sa loxo dugal ko sama poos jël sama kayit dix mille bi te la bu ñu paree sariya daay wax na julli gi baax na waaye xaqiqa moom danaan julli gi baaxul yàlla ne xeexi li nga def dara baax gut ci xaalimul xëy wa saadati fa yun na bi ukub baakum taxmaloon sariya boo ko déggee mooy jëf yii ñuy attewoo ci saayir waaye baatin ba nag moom yàlla moo koy atte nee nag sama lépp ñeel na yàlla moo xam lu nëbbu la ak ci lu feeñ kulli sama lépp li rabbi ñeel na sama borom fii shirin moo xam ci lu nëbbu la wa wala ci lu feeñ xayra naafihin kudut ari aji jëriñi ji yàlla mi tudd annaafi gis nga tur yu muy indi nga xam ne yàlla ku muy jëriñ mi ngi lay jëriñee ci turam wii di naafion moo tax mu indi tur wii di naafion nga xam ne wane na ne léegi buy ñaan yàlla ki koy may mooy naafion waaye ki koy may du keneen ku dul moo tax mu ne walastu déet man Sëñ Tuubaa asalu may ñaan xayra naafihi ku dul yàlla mi aji jëriñi ji lillahi te mooy yàlla wala nga ne laahi te mooy yàlla moom képp képp képp képp lay ñaan xoolal tawhid rek jox naa sama lépp yàlla moo xam lu nëbbaloo la ci lu feeñ te du ma ñaan ku dul yàlla ku mën a doon rek du ma la ñaan man daal yàlla mu tudd Naafi'u ah, moom képp képp lay ñaan waaye ku dul yàlla rek te sama lépp moo xam lu nëbb ak ci lu feeñ ndax nit lu nëbb ak lu feeñ leer la am sëñ Tuubaa na naan jël naa sama lépp jox ko yàlla sama lépp jox naa ko yàlla walastu asalu xayra Naafi'u laay nee na rëddiitu gërëm loo naa xan naafixan wulis aji jëriñu ji te mooy yàlla baaqin ki nga xam ne mooy aji des ji wa askuruhu ta danaa ko sant ilal jinaani ba ki rek may tabbi aljina bi xawli sama wax daal alhamdu mooy mboolem xaaji cant yi lillaahi ñeen na yàlla nee na gërëm naa yàlla mi nga xam ne mooy aji jëriñ ji xam nga daa waxoon ne man de du ma ñaan ku dul naafion léegi nag mu ne gërëm naa naafion moom waaye nag ki nga xam ne moo tudd albaqi mooy ki fay des ba faw nee na fu ma toll dama koy sant ci effort ci jëf di yëngatu def ay effort di ko jaamu guddi ba ci ba keroog may tàbbi aljana ba aljana ji nga xam ne daal bu ñu fa duggee ñëpp mooy seen wax mooy alhamdulillahi lati hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sama wax daal man Sëñ Tuubaa mooy cant yëpp mbooleem xaaji cant yi daal ñeenti yëpp moo xam cant gi nga xam ne bindee fi dañ koy sant seen biir moo xam sant gi yàlla sant boppam la moo xam sant gi sant jaamam mboolem ñeent euh, mboolem xaaji yi ñeent yëpp jox naa ko suñu borom tabaaraka wa taala moo tax mu ne raditu gërëm loo na an naafiyan gërëm loo na an naafiyan wëlis yàlla mi nga xam ne mooy aji jëriñe ji baaqin yàlla mi nga xam ne mooy aji def ji wa askuruhu te danaa ko sant ilal jinaani mooy dinaa ko jaamu rek ilal jinaani ba kere may tàbbi aljana bi xawli sama wax daal man sëñ Tuubaa mooy alhamdu mboolem ka cant yi daal lillahi aji sax la ñeel yàlla suñu borom tabaraka wa taala kon jox na tawhid ju mat sëkk suñu borom tabaraka wa taala mu ne waxaaniya durra takriman wa wajjali nafan bila kullafin fa sukru lillahi mu ne yàlla dee waxaa niya fegal na ma addurra lor maanaam lor du ñëw ci man sëriñ tubaa yàlla protégé na ma ba nga xam ne lor bi yëkk ci man waaye nag da koo def takriman ci tiraangaam tiraangaam xam nga man li ma gën a yëm mooy sëñ tubaa booy xool ci xasida yi danaan tiraanga yi ma yàlla defal dañoo bëri ba ñooy dàq lor yi xam nga tiraanga yu bari ñaareel dañuy wax ne tiraanga bu bëri ci nit ki mën na ko yàqal waaye sëñ tubaa neen sama tiraanga yi maanaam ñooy dàq lor yi akramani rahmaanu ikraman kafa kulliyati durru wa faydi wa kafa ca wakaana xan nee na yàlla tiraanga yi ma teral danoo bëri ba tiraanga yi ñooy fekk lor yi xam nga loolu kenn masugul ko dégg moo tax ma ne waxaan ya fegal na ma ak durru ak lor takriman ci tiraangam ci teddangaam waaye nag moom yàlla woo jaxa jëmale na lii ci man ahmadul qadim nafaan njëriñ yi da koo nëkkiraal xam ne njëriñu ëdduna ak àllaaxira mi ngi ci loxo sëñ Tuubaa waaye nag bi ma ko jëmalee ci man ba noppi nag bilaa kulafin ci luru benn coona ak tiis nga xam ne ñaareel léeg-léeg yàlla jox nit ki njëriñ ak i ay xéewal fekk coono képp la koy jural mën na cee dox ba ala ko sax sëñ Tuubaa nag nee ne nga xam ne nu mu ñaan boromam ak lu mu ñaan boromam dana ko ñagee noo xam ne luy xeetu ak yàqu du ci du ci rax du ci ànd moo tax mu ne ya fegal na ma durra ak lor takriman ci tiraangaam waaye waaw waa jaxa jëmale na lii ci man ndax faan ay njëriñ bi laa kulifin ci lu dul benn tiis ak i coono kon nag fa sukkuri ca dëgg-dëgg daal a cant lillaahi ñeel na yàlla cant daal ñeel na yàlla mu cant gi mooy lan cantu jëf man sëñ Tuubaa daal war naa ko cant waaye na mboolem koo xam ne nangu nga ne yàlla yàlla war nga ko cant ndax yàlla yónente bu mu tagg rek euh, baataf sukkur la ko tagge ku demee ni yàlla noonu dañuy waxal ne ku mënoon a cant la moo tax ñu ne ko innahu kaana abdan sukkuran yónente yàlla Ibrahima ku mënoon a cant la moo tax ñu ne ko saa saakiran li an xumuy ittabaaw kon gis nga ne yonent yi ñu bëri suñu borom bu leen di tagg da leen di tagg ci wàllu ak cant ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne waqaanee fegal na ma addurra loo takriman ci tiraangaam waaye woo wàjjaxa jëmale na lii ci man naxaan njëriñ ji waaye nag bilaa kulifin ci lu benn coono ci lu benn tiis kon nag fa sukuru daal ak cant cër dëgg-dëgg daal lillaahi ñeel na suñu borom tabaaraka wa kon nga xam ne moom njëriñ yëpp mi ngi ci jëmmi sëñ tubaa te génnu ten xam ne la muy tuuti tuuti njëriñ yëpp ñu ngi ci loxo sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu mu ne nag yàlla mi ma fegal lii nag waaye defalee ma ko ci tedd ngam ak kiraangam ba noppi jël njëriñ yëpp jox ma ci lu dul benn coono kon daal dëgg-dëgg bu ma goree man sëñ Tuubaa daa war naa cant yàlla fa sukru ak cant daal li laay ñeen yàlla te mi ngi ci jublu moom jëmmi boppam daa war naay sant yàlla waaye képp koo ne nangu ne yàlla yàlla daa war ngay sant yàlla mu ne allahu akbaru min xaqadi wa min amali wa fi kulli taaba fillahi mu ne allahu yàlla dee akbaru aji màgg la min xaq di lépp loo xam ne samay pas-pas la womin min xamali ak lépp loo xam ne samay jëf la wa min maqaali ak lépp loo xam ne sama wax la ay waay waay nee na fa kulli sama lépp taaba na dal na fii laahi ci yoonu yàlla neen daal yàlla daal buur la samay pas-pas samay jëf sama wax ndax lii rek mooy nit ki ak taw tawhiitam ak i jëfam yi ak waxam yi lii rek mooy nit ki sëñ Tuubaa nee na sama lépp teey ne ci yoon yàlla nee na sama lépp nag ba demee ba tey ci yoonu yàlla dëgg-dëgg daal yàlla mooy ku màgg yàlla rek man loolu mooy nit ki dem ba léppam dafa dal ci yoonu yàlla fii laahi maanaam ay fii sabilillahi nga koy tekkee fii laahi ci yoonu yàlla sama lépp ndax léegi kenn dootul ma loor kenn dootuma teg fitna kenn dootul dootuma tuumaal kenn dootuma def dara yàlla daal ci dëgg-dëgg daal yàlla kenn la allahu yàlla akbaru moom dong mooy aji màgg yàlla dal aji màgg min haqli ndax lépp loo xam ne sama pas-pas la wa min amali lépp loo xam ne sama jëf la wa min maqaali lépp loo xam ne sama wax la fa kulli sama lépp bul bàyyi dara dara dara dara taaba tey na fii laahi ci yoon yàlla dal na am naa tranquille fu ma neex dem mu ne allahu ashaba ma yethom asan li siwa maxtiira li inda rabbil akramillahi mu ne allahu yàlla de ashaba dàq na maa la nga xam ne yeddohon Euh, wala nga allahu yàlla asaba dàq na asan lor li si waa ma mu jëm ci lu dul la nga xam ne ixtiira tànn na ko lii ñeel ma xen dërëb bi façon borom mi nga xam ne al akrim mi mooy aji tedd ji allahi te mooy yàlla ma lépp loo xam ne yeddu hoo ñaanoon naa ko ko mu ni suñ borom de dàqal na ma lépp loo xam ne ñaanoon naa ko mu fegal ma ko rek ci ay lor nee na lor yëpp dàq na ko mu jëm ci fu dul lu dul li nga xam ne la ma tànnal te mooy li ko yàlla tànnal mu di ko jaaboo li ko yàlla tànnal moom la rasulullah tànn loolu sahaaba yi nam ko ci midaad yi wa inni bi ma lixtiira xat xan nee na li ma yàlla tànnal de moom la rasulullah tànn loolu njabootam te muy sahaaba yi nee na yàlla de dàq na lépp loo xam ne xeetu lor la mu jëm ci fudul lim ma tànnal lépp loo xam ne ñaanoon naa ko ko rek mu fegal ma ko yàlla fegal na ma ko lépp loo xam ne ñaanoon naa ko rek mu ñoddil ma ko rek yàlla ñoddil na ma ko moo tax ne allahu yàlla asaba dàq na asan ay lor li siwaama mu jëm ci lu dul loo xam ne ixtira tànnal na ko moom yàlla li ñeel ma xendër bi façon borom mi nga xam ne al akrim mooy aji tedd ji laahi te moom mooy yàlla képp moom képp mooy yàlla dàqal na ma maa la nga xam ne yedd ñaanoon naa ko ngir mu joñal ma ko loolu yëpp léegi dàqal na ma ko mu jëm ci lu dul li nga xam ne tabaraka la tànnal na ma mu ne lahul wujoodu la si xasaanahu qidamun mahal baqaa'i wa xeyrullahi lillahi mu indi bayit boo xam ne bayitub tawhid la jox na yàlla léppam waaye dàqal na yàlla lépp lu xeete manqué di waaye ràngal na yàlla lépp loo xam ne dafa euh, euh, ràngoo ci jëmmam ji moom yàlla lépp loo xam ne jëmmam ji rek jekk na ca waaye jagoo na ko ràngal na ko yàlla waaye lépp loo xam ne ak manqué di la lépp dàqal na ko yàlla mu ne loxoo ñeel na ko moom yàlla al wujoodu am nga kon daal yàlla moom ku ama am la allati mooy ki nga xam ne xat saanakoo taaral na ko sax xiddamun ak jiitu xam nga am gune dañuy wax ne nit ki kat tàmbalee ni fii bis bii la judd tey la anniversaire am waaye yàlla kenn xamut ko yàlla amul fu mu tàmbalee ku am la loolu ngay njëkk gëm yàlla ku am la waaye nag li ko taaral mooy ak jiitoom jiitu ko xam ne amul tàmbali waaye nag maal baqay ànd ak des ga wa xayrullahi lu dul yàlla lillahi ñel na ko moom yàlla yàlla bi mu nekkee yàlla lépp lu am rek yàlla la loolu la bëgg wax rek nee na yàlla da nga war a gëm ne ci wàllu tawhid buñ lay jàngal dañ naan la maanaam li ngay njëkk gëm mooy yàlla ko am la waaye nag yàlla mooy ki fi jiitu te amul mu tàmbalee waaye mooy ki fi des moo fi mooy ki fi des bu fi ñëpp bayee ko ndax walillahi miras samawati wal ardi wala bi ma tamaloon xabirun wa yabqa wajhu rabbika sul jalali wal ikrami kullu shay'in halikun ila ko wi leetul jone lépp loo mën a gisat dana alaku mooy dana faatu yàlla rek moo fi des mooy donn lépp waaye nag yàlla soxlu dara moo tax ne loxoo ñenn ko alwujudu am ga allati mooy ki nga xam ne xat saanohoo taaral na ko xiddamun jiitoom ga waaye nag maal baqay ànd ko des ga jiitu ko amul mu tàmbale waaye dafiy des ba faw wa xayrullahi lu dul yàlla rek lillahi ñeel na yàlla loolu mooy lan yàlla bi mu yàlla ba noppi lépp loo gisati rek yàlla mooy ku ko yàllaa ko moom yàlla moom ma leen di wax ne loxoo ñeel na ko moom dong dong dong sukkoor yi sama jaam sukkoor yi sama cantu kër waa am ak sama cantuk làmmañ waaye raadiyan mbir moom mooy aji gërëm ko wallahoo ñeel na ko zarmadan ci luy sax ba faw yi sama lépp fal xalqu mbindeef yëpp lillaahi ñeel na yàlla yàlla daal mooy kimbeem mbindeef yëpp kon daal ñeel na ko moom yàlla sama cantik mooy sama jaamu yi ak sama cantu làmmañ mbir moom mooy aji gërëm ko moom yàlla nag sama lépp jël naa ko jox ko ci luy sax ba faw nga xam ne fu ma nekk man sintiwaat tubaab ci luy sax ba faw rek sama lépp dama koo jël jox suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne du ma bàyyi dara dara lépp jox naa ko yàlla ndax yàlla de moom mooy ki sàkk mi def yëpp yàlla de moom mooy ku moom bi def yëpp huwal karimu lati lii xaadadoo na anan maxtiira li hendohoo fal amru lillahi nee na huwa moom yàlla al karimu mooy aji tedd ji allati aji tedd ji nga xam ne xaada womat na li jox ma doo na ci lu dul benn coono maa la nga xam ne ixtira tànnal na ma ko moom yàlla li ñeel ma hendohoo li nga xam ne nekk na fa moom te mu tànnal ma ko ngir bëgg ma ko jox war ma ko jox nee na yàlla moom de wommat na ko jox ma ko moom mi nga xam ne mooy kërim mooy ku tedd ki ci lu dul benn coono te aw ma ci benn coono te wommat na ko jox ma kërim bu ñu ko waxee ci yàlla mooy ku tabe bëri na ay firin waaye bu ñu ko waxee ci yàlla mooy ku tabe ndax inna rabbi xaniyun karimun yàlla mooy ku géejal ki waaye mooy ku tedd ki mooy ku tabe ki kërim ko waxee mooy ko xam ne day joxe day joxe te kenn du ko laaj kenn du ko ñaan léeg-léeg mu xam ne jaamam bi soxla na dara mu di ko envoyé ay xéewal ak i ay message xéwal moo tax mu ne huwa moom yàlla alkarim mooy aji tedd ji alla ci aji tedd ja nga xam ne xaada mat na li lii ñeel ma duuna anan ci benn coona lan la mat muy maa li nga xam ne ixtira sànnal na ma kom yàlla lii ñeel ma waaye xen duhoo fa moom fal amru mbir yëpp fal amri dogal yëpp lillaahi ñeel na yàlla ndax alaa lawul hukkumu alaa lawul amru alaa lawul hukkumu wal tabaraka mbir yëpp ñeel na yàlla buñ na ñeel na yàlla mooy lañ beekoo yàlla la ñuy dellu lépp rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon daal nee na yàlla mi aji tedd tey kërim tey aji jox nga xam ne mooy kiy joxe te doo ko ñaan nee na mooy ki ma wommatal lépp lu lépp loo xam ne tànnal na ma ko waaye nag fa moom te mu nekk fa moom nee na wommatal na ma jox ma ko ci lu benn coona waaye nag fal amru nga xam ne xeetu cant la xeetu bàkk la xeetu kañ la xeetu wéetal yàlla la moo tax ma ne fal amru dogal yëpp fal amru mbir yëpp lilaahi ñenn yàlla faasat xilaami bi sikrillahi musamanin wa faasa kulliya fi daareni wallahi nee na wallahi gëñ naa ci yàlla da nga koy xaddam faasat texe na tuufu na xilaami sama xalima gii bi sikrillahi ci tudd yàlla mus musamanin diiru jamono te wa faasa texe na kulliya sama lépp fii daare ni adduna ak alaxira nee na naa ci yàlla man sëñ tubaane maanaam sama xalima gi texe na ci tudd yàlla diirub jamono waaye sama lépp texe na lépp lu bokk ci man rek texe na lu ko waral mooy fu ma toll rek damay tudd yàlla tudd yàlla rek ndax yaa man uddiima sikri dafa am dawaamu sikri am dawaamul xidma am dawaamu sukuri bu dee dawaamu sukuri mooy xabli dawaamu sukuru lil jinaani biruuhi wal jasadi wal jinaani bu dee dawaamul xidma mooy antal karimu anal qadimu daran uddimu fii ka sanayi bu dee dawaamu sikri mooy nam ko waxee ca euh, jaalibatu maraqib yaa man uddi ma sikkiri kon ñett yëpp sëñ Tuubaa da ko am moo tax ma ne wallahi gëj naa ci yàlla faasa tuufu na xilaa nii sama xalima yi di sikki lay ci tudd yàlla mu sama neen diirub jamono wa faasa texe ne ku lii sama lépp fii daareen adduna ak alaxira na ko noonu ku taqee ku takkoo xasida yi itam noonu rek ngay mel sa sa lépp day texe sa lépp day texe moo tax ma ne yoqoodulillahu fi daareni murtadiyan xani muraadiya xawdal baasitillahi nee na yoqoodu dana wommat li jox ma allahu yàlla fii adduna ak alaxira murtadiyan mbir moom muy aji gërëm moom yàlla xànnii wëllis ma wala ànnii jëlee ci man muraadiyee samam xemamteef mboolem yàlla lu ma bëgg sama xemamteef rek gannaaw bi mu ma gërëmee ba noppi yàlla lu ma bëgg sama xemamteef mu jox ma mooy sama nammeel buñ ne muraadiyee mooy lim nammu nga xam ne xemamteefam rek la ci jublu nee na yëqoot dana womat alaaw yàlla liy jox ma fii daaree ne ak alaxira waaye murtadiyan mbir moom muy aji ci man muraad yi sama nameel muy sama xemamteef xawdal baatiti comme wommatub aji tàlli lillahi te moom te moom mooy yàlla suñu borom a wa taala nga xam ne yàlla dafa bokk turam yi al baasiti mooy aji tàllal ji nee na yàlla nag lépp lu ma bëgg rek moom mooy ki may jox ndax kulli inna rabbi yabsutu risqa liman yashaa wa yaqdiru yàlla nee na may tàllal sa ku ma soob waaye may xatal wërsëg su ma topp euh, ku ma soob sëñ Tuubaa nag nee na moom la soob yàlla wax ne moom mooy borom tiraangi saa al illahu anani mukramun nga xam ne wax na ko ci minnul baaxidin neen nag yàlla dana wommat di ma jox adduna ak alaxira lépp lu ma bëgg sama xememteef rek nee na comme wommatuk aji tàlli nit ku tàlli na muy jëlee di baadare moo xam ay soxnaam moo xam ay doomam ki nga xam ne dafa tàlli di nuqi rek di joxe nee na yàlla nag noonu la mel sama diggante ak moom léegi day nuqi rek di ma jox moo tax ma ne yokkoon dana womat allahu yàlla lii ñeel ma fii daare ne adduna ak alaxira waaye murtadiyan mbir mu muy aji gërëm ani ci man muraadee sama nameel muy sama ximanteef xawdal baasiti comme wommatug aji tàlli lillahi ta moom mooy yalla moom suñu borom tabaraka wa taala nee na af naa xulaati bila tawjihihim abadan ila jihaatiya sa ajrin ladallahi nee na moom yàlla de af naa jeexal na xulaati samay noon yi mooy ñi ma bañ ñi nga xam ne woy bañ lañ ma nee na af naa jeexal na xulaati ñi nga xam ne woy bañ lañ ma mooy loolu mooy lan mooy dootuñ ma jublu ci ñi ma noone ñi ma bañ ñëpp dootuñ ma jubluti moo tax ne taw tawjihim ci lu dul ñi may jubluti abadan faw ila ya di jëm ci samay wàll saa ajrin te boroomu payor laa la dal laay fa yàlla waxut fii de sëñ tubaa léppam ma fa yàlla fu ne li ngeen di gis xéewali lu ñuy bëri bëri ci adduna sëñ tubaa adduna mosut koo tax a jóg mosutu liggéey ngir adduna waaye nag sunu borom moo baaxoo di jegoo noonu ndax fam nu na awa am sig bi xer xisaabeen nee la yoo xam ne bu leen neexee ngeen ngëb ko te bu ëllëg yomal xamee kenn du leen xisaab moo tax ne naa jeexal na xullaati sama noon yi ma bañ yëpp bila tawjihim ci lurut ñiy jublu abadan faw ila jihaati ya di jëm ci samay wàll man sëñ Tuubaa saa ajirin boroma payor laa la da lay fa yàlla waxut fii de nee na samay noonu kenn dootuma jublu ci di jëm samay wàll te man sëñ Tuubaa làq na ak payor fa yàlla borom payor laa fa yàlla nee na dan saa xidmatin li rasulillahi billahi nee na billahi gëñ naa ci yàlla yëddi sama loxo waxal bi ak samam xol sama loxo ak samam xol yépp moom Sëñ Tuubaa mooy wax nee na loxoo ñeel na yàlla waaye nag xab dan mbir moom ma nekk di ab jaam loxoo ñeel ko bi dan ànd ko ngërëm nee sama loxo duma ko tàllal keneen sama loxo daal ñeel na yàlla man Sëñ Tuubaa duma dem di tàllal keneen keneen ku dul yàlla yëddi ñi naa sama loxo waqal bi ak sama xol loxo ñeel na yàlla xabdan mbir moop ma nekk di ab jaam loxo ñeel ko waaye biri dan ànd ko ngërëm waaye nag saa xidmatin mbir moop may borom ak liggéeyal li rasulullahi ñeel ki nga xam ne moo yonentu bi yàlla bi te billahi gëñ naa loolu ci yàlla sama loxo ak sama xol yépp jox naa ko yàlla sama loxo duma tàllal keneen ku dul yàlla sama xol du ma ci fas keneen ku dul yàlla waaye nag ma nekk di ab jaam buy jaamu yàlla waaye nag di ko gërëm moom yàlla ndax gërëm na ma gërëm naa waaye nag teg ci nag takkaayu al al abdul xadim mooy di liggéeyal lii kat naa ko ci yàlla man suñ tubaa lii rek mooy sama mbir liggéeyal yonente bi ak di jaamu yàlla sama lépp yàlla gërëm na ko kon nga xam ne suñ tubaa dafa mucc ci gépp ayib ya rabbi salli wa sallim sarmadan karaman ala wasilati al xosma ilallahi mu ne yaara bi yow sama boroom solli maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal wasallim gu ànd ko dollik wóolu sarmadan ci luy sax ba faw karaman ci sa tedd muy sa tiraanga xéewal googu ak mucc googu nga xam ne day sax ba faw waaye nag nga def ko karaman ci sa tiraanga mu ne ala wasilati yàlla nekk ci kii nga xam ne mooy sama wasila mooy sama sëriñ avancement mooy ki gën a màgg ilallahi ci ñi nga xam ne dañoo jëm ci yàlla mboole ñi jëm ci yoonu yàlla aw ci yoonu yàlla yonent bi mooy champion bi mooy wasilay ñëpp moom yonent bi alei salatu salam asnal wasaiti turan wal wasilaati waaye baana li kulli man loo man xoolu an na wasilatu wa rasul sëñ Tuubaa nee ne leer na nañ ci képp ku am xel ne yonent bi alayhi salatu wasalaam moom mooy sama sëriñ moo tax mu ne yaa Rabbi yow sunu borom maa ngi lay ñaan salli yàlla na nga doolu xewal wa sallim gu ànd ko doolu wóolu sarmadan ci lii sa ba faw karaman ci sa tedd mi sa tiraanga ala wasilatiya yàlla na nekk ci kii nga xam ne mooy sama wasila te mooy xéewal googu am mucc googu alancement mooy ki gën a màgg ilallahi jëm ci yàlla mu ne askar salaatin gën cay sell dollik teral bi taslimin gu ànd koog dollik wóolu bi la xaddadin ci lu dul benn lim nga xam ne du am yemukaay mu ne àlan nabi yàlla nekk ku ñu solooki a rasuli kii nga xam ne mooy ndaw lu yàlla yónni ala abdi kii nga xam ne mooy jaam bi jaamu lillahi ngir jëm yàlla képp tax mu ne gën cee sell salaatu salaam goo xam ne dafay ànd ko mucc salaatu goo xam ne dafay ànd ko mucc te muy salaatu salaam la ci jublu gën cee sell salaatu ko ca gën a sell nga xam ne salaatu goo xam ne du am limite du yem fenn duñ ne fii ci na lay yem wala barsax wala yomal xiyaam nga xam ne du am limukaay mu ne yàlla na nga ko sot ci ki nga xam ne mooy ku ñu déey ba noppi yónni ko waaye mooy ndaw li yàlla yónni na ko yaa ayyuha ba noppi da caa teg nag boole yónnante wa taala di woot nit ñëpp di leen woo ci wéetal suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne aska salaat gën cay seetlu dolli teral bi tasamin ko ànd dolli wóolu bi la xadarin ci lu benn limite mu ne ala nabi yàlla nekk ku ñu solo ki arasolo ki nga xam ne mooy ndaw li yàlla yónni waaye nag al yàlla lillahi ngir yàlla dongu tax yàlla rek daroon jaamu yàlla ngir yàlla képp waaye jaamul yàlla ngir bindeef wala jaamul yàlla ngir leneen mu ne kookoo ma leen di wax nag muhammadin turam mooy muhammad xayri man mooy ki ngën ci képp koo xam ne tagg na ko mooy ki ngën ci képp koo xam ne xaaboo fàddu na woo man xaduroo ak ñi teew nga xam ne muhammad mooy ki gën ci ñi fàddu ñëpp nga xam ne ñi woy yëpp yonente bi leen gën waaye ñi teew ak ñi xawee sa ñëw ñëpp yonente bi leen gën mu ne muhammadun mooy muhammad xayru man mooy ki gën ci képp koo xam ne xaaboo fàddu mooy kenn gisatut ko wa man xadroo ak ñi teew ñiy dund ci jamono yépp yonente baa leen gëm waaye nag salaatu goog wal aali na ñëw ba ci waa këram wa sax bi ak sahabaam ya hisbal maliki ñi nga xam ne ñooy kuréelu yàlla muy aji moom ji lillahi te mooy yàlla mu ne Muhammad moom ma leen di wax mooy gën ci képp koo xam ne fàdd na waaye ngën ci képp koo xam ne teew na ñiy dund daal ak ñi faatu ñëpp waaye neen salaatu googu na ñëw ba ci waa ak saabaam yi nga xam ne ñooy kuréelu suñu borom bi tabaraka wa taala nga xam ne ñoo fi nekkoon di jihaar di dimbale yonent bi alayhi salaam di dem ci xare yi di dajji tata yi ba sëñ Tuubaa taggalee neen usuduna alal inqda masabia fii duja wa kullun sunjaa undon satil kufi yeccaun ne na maddatu lillahi rabbil alamina yadi wa maddali minhu fadlal waasiallahi ne na maddattu tallal naa lillahi ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy bërëm mbindeefi yeddi sama loxo sama loxo laa tàllal yàlla mi borom bi defi waaye wa madda bi ma ko tàllalee yàlla te wa madda tëggu na mooy tàllal na mooy jox na lii ñeel moom yàlla minhu bàyyi koo ca moom faddalal waasihallaahi ngëneel la moom yàlla mi aji yaatu ngëneel la moom yàlla mi aji yaatu nee na ngëneelam ci boppam bi ma tàllee sama loxo moom mi nga xam ne mooy borom bi defi moom képp nee na dafa maa tëb ay xéwal yoo xam ne dafa bàyyi ko ci moom ci ngëneelam ndax loolu taxis la ndax walaahu yaqtasu bi rahmati man isa wala soppaliasin yàlla mooy jagleel ku ko soob ci yërmandem ak i ngëneelam yàlla la soob nag bi ma tàllalee sama loxo nga xam ne duma tàllal keneen ku dul yàlla bi ma jëlee sama loxo nag tàllal ko yàlla yàlla dafa maa tëbb ci ngëneelam tëbb ma ci mbaaxam ngëneelam lu yaatu loolu ci la ma tëbb moom yàlla di ma xéwale di ma dotte ay xéwal yoo xam ne yem moo tax mu ne maddatu tàllal na yadi sama loxo lillahi ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy bërëm bi léegi waaye bi ma ko tàllalee wa madda tëbb na mooy jox na lii ñeel ma min fu bàyyi ko ci moom yàlla faddalal waasiallahi ngëneelam lay aji yaatu moom yàlla faddalal waasia mooy ngëneelam lay aji yaatu la lillahi te moom mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu ne an malikin naafi an bërin raditu bila suqutin wa an qaidin lillahi billahi mu ne raditu gërëm loo naa an malikin walis aji moom ji te mooy suñu borom naafixan ki nga xam ne muy aji jëriñe ji bërin tey aji baax gërëm loo naa ko gërëm goo xam ne maanaam gërëm naa gërëm goo xam ne bilay suqutun ci lurut ak yoqat bilay suqutun ci lurut ak sànj waxën xa idin wëlis aji wëlis wëlis samay wommat lillaahi ñeel na yàlla sama wommatu daal lillaahi ñeel na yàlla billaahi ci kattanam ci lay wommatu di jëm ci moom nee na gërëm naa yàlla moom mi nga xam ne mooy maalik di naafeen di barin maanaam ngërëm loo xam ne ak sànju di ci topp nee na wommatu gi may woote jëm ci yàlla nee na ci kattanam la moom suñu borom tabaraka taala ndax képp koo xam ne jaar nga ci yoonu dëgg jaar nga ci yoonu l'islam loolu ci kat moom suñu borom tabaraka taala am moo tax ne rajnitu gërëm loo naa an malik ni wali son borom mi nga xam aji moom ji naa fi an aji jëriñu ji waaye bërin tey aji baax ji ah, gërëm loo naa ko gërëm goo xam ne bilaa suxtun ci lurut ak sànj wa an qaidin Euh, wëllis ak wommatu lillahi wëllis sama wommatu lillahi ñeel na yàlla ma maanaam daal sama wommatu daal ñeel yàlla waaye billahi ci kattanam moo tax mu ne waxaan qaa'idin wëllis sama wommatu maanaam sama wommatu lillahi ñeel na yàlla waaye nag billahi ci kattanam rek la ko ñeele moom suñu borom tabaraka wa taala ndax képp ko xam ne jaar na ci yoon ya mu bëgg kooku moom ci kàttanu suñu borom la waaye jàmm bi dëgg-dëgg moom tabarakallah euh, bu ko yàlla defalu tawfiq moom daram du yëg yàlla daali sikkirin mi man bii saara kulli taxatallahi mu ne daxaa woona tabarki la daxaa woona ma li sikkirin ñeel ak tudd yàlla wa sukkurin ak cant jusati sama jëmm këramun ak tiraange yi mi man tiraanga ya nga xam ne mi nga bàyyi ko ca ka nga xam ne bihi ci kattanam saara mujj na kulli sama lépp taatallahi di topp yàlla di jaamu yàlla nee de sama jëmmu ak tiraange yi maanaam ñoo ma woo maanaam sama jëmmu tiraange yi ko yàlla yi ak wér gi ko yàlla jox ak xéewal yu bari yi ko yàlla jox te mu bàyyi ko ci moom yàlla nee na moo ma woo nag ma jëm ci di cant yàlla waaye di ko tudd jamono ji nekk di ko cant ci cantu cër ndax ihmadu ala daawul sukran wa qalilu min ibadi sakoor yàlla mi nga xam ne de tiraanga yépp mi ngi bàyyi ko ci moom ñëw ci man waaye nag yàlla mi xam ne ci kattanam ci mbaaxam ci la sama lépp mujjee rek di jaamu yàlla nga xam ne sama lépp rek du mos a wàcc yoonu yàlla ndax wax ne ne mostu mooy yàlla mostu jublu amul njëriñ mostu def bàkkaar bu ndaw moo tax mu ne daxaa woo na ma li sikrin ñeel ak tudd yàlla wa sukkur yi ak cant lu ma woo mun a gisati sama deram këramun ak tiraange yi mi man ñi nga bàyyi koo ca ka nga xam ne euh, tiraange yi bii ci kattanam saara ci la mujjee kulli sama lépp taatallahi di jaamu yàlla mu ne wajaxtu kulli liman yuxni bila sababin xanil asaaraat yéen an sil warallahi mu ne wajaxtu jooyal naa mooy jëmale naa rek kulli sama lépp li man ñeel yàlla mi nga xam ne yuuf nii doylu loo na ma ci moom bilaa sababin ci lurul benn sabab ndax wax na ne moom ay sababam ci yonente bi koy jaare waaye léppam da ko wékki yàlla xaniitu billahi anil arbaabi wa bi muhammadin anil asbaabi ca nuuru daare ni moo tax ma ne wajaxtu jëmale naa kulli sama lépp li man ñeel yàlla mi nga xam ne yuuf nii doylu loo na ma ci moom bilaa sababin ci lurul benn sabab sama lépp dama ko jël jox ko yàlla doylu ci moom du ma du ma du ma juñal sama bopp du ma ñoddi sama bopp moo tax mu ne jël naa sama lépp jox ko yàlla euh, moo tax ma jox ko jëbale naa kulli sama lépp li ma ñeel yàlla mi nga xam ne yuux nii doylu loo doylu loo doylu loo naa ca moom bilaa sabin ci benn sabab doylu naa ci moom xanil asa wëlis lor ya raadiyan mbir moop may aji gërëm xann sil waraa walis ki nga xam ne mooy borom bindee fi lillahi te mooy yàlla bu ko defee nag baat yi laahi la ñuy wax waaye bu mu ne lillahi bu mu ci topp ndax firimi la rek moo tax ma ne wajjax bu jëmale naa kulli sama lépp li man ñeel yàlla mi nga xam ne yuux nii doylu loon doylu loo naa ci moom bilaa sabin si lu benn sabab mooy xanjal asa wulis lor yi raadiyan mbir mu may aji gërëm ko nag may aji gërëm xan si lu waraa walis ki nga xam ne mooy borom bindee fi lillahi tam mooy yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu ne diini ilal jannati islaamu wax waxala diinan si waa waahu wasaa nasun min allahi mu ne diini samay diini man sëñ tubaa ilal jannati ba keroog may tabbi aljana al islam mooy islam te wax wa moom islam xaalaa kawe na diinan diina ci waaxu gudul moom te wasaa lii du sama wax kat wasaa lii ma leen wax ne diina la joo xam ne kawe na gudul moom nasun ak yax la loo xam ne yàlla mooy ki ko yaxal ci alquran minallahi mu bàyyi ko ci yàlla ndax suñu borom moo ne inna diina inda la islaamu diina kat genn rek la te muy lislaam daa dina waman yëg tot xeyra lislaamu diinan falan yuqbalu minhu woo fi laa xam ne xaafiriin képp ku sàkku geneen diini ku bokk la lislaam ñu ko nangu te bu yowmal xeamee day perta day ñàkk nga xam ne day perta moo tax ma ne diini samay diina ilal jannati ba kere may tabbi aljana man sëñ tubaa ndax diinun si waa islam yi laa yuhmadu xendal illahi wa bii nu jadid moo tax ma ne sama diina ba kere may tabbi aljana ñu naa mu ne islaam benn diina képp la am te mooy diina gi yàlla yaxal ci alquran mu ne wax wa te diina jooju doo ala kawe na diinan diina si waaw bu dul diina joo digg rek bu euh, bu ñiy jaamu ay xuraafaat ak yu mën a doon rek bu yomal xeamee dañuy ñàkk ndax kenn du ko nangu te yàlla rek mooy yàlla te bee diini ji rek la jox yonent bi alayhi salaam moo tax mooy wasaa lii ma leen wax na nag nasun ak yax la mi ne gu bàyyi ko ci yàlla te alquran moo wax ne inna diini inda lahi lislaam ne na axtaani allahu sikran min ladunhu waqat qabiltuhu minhu saa xurbi min allahi nee na axtaani ya jox na ma allahu yàlla sikran alquran alquran ji muy tiiri bi min ladunhu mu bàyyi ko ca moom waaye na waqat ci dëgg-dëgg xabiltuhoo nangul na ma min hu bàyyi ko ci mam saa xurbin li may borom ak jege may borom ak jaamu ànd ko jege mi ne laay ci yàlla nee na yàlla jox na ma téere bi waaye nag mboolem xeeti jaamu yi may def yëpp yàlla nangul na ko ba noppi jaamu yi ma koy def yàlla jegal na ma boppam nga xam ne léegi jege naa suñu borom waaye lépp maa ngi ko amee ci jaamu yàlla waaye nag lépp maa ngi ko amee ci jaar ci alxuraan di ci jaamoo sama borom tabaaraka wa taala ndax wam wal kitaabu la ci man kaana qaadimuhu sakan lawala xel mboolu ahmaalu siimu nee na alxuraan mooy téere boo xam ne képp ku sax dàkk di ko liggéeyal suñu borom dana sellal xam-xamam ba ak jëfam ji ak jukkam ja kon alxuraan jar na liggéeyal moo tax mu ne ahtaaniya jox na allahu yàlla sikran alxuraan ja min la du mu bàyyi ko fa moom waaye waxat ci dëgg-dëgg nag moom yàlla xaddiltu foo nangul na ma min mu bàyyi ko ci moom saa xor ben mbir may borom ak jege nag ànd ko jaamu nag saa xor ben mbir may borom ak jege nag mi ne laay nga xam ne léegi nag jaamu naa yàlla ba jege suñu borom tabaraka wa taala mu ne taslimu baqin ala xayril wara wa ala xisbin lahu wa ala almustaaxi lillahi mu ne taslimu baqin dollik musulug yàlla mi nga xam ne mooy aji des mu ne ala xayril wara yàlla na ko sot ci kaw ngën ci mbindeef wa ala hisbin ak ànd ko kuréelam ba lëfoo ñeel ko waaye wa alal mustaaxi ak képp koo xam ne aji xadoo la lillaay ñeel yàlla maanaam képp koo xam ne li yonente ba nekkoon nekk nga ca la saaba yi nekkoon nekk nga ca rek mu ne salaatu wasalaam googu yàlla na ko sama borom sotti ca ko buñ ne mustaaqi mboolem ku nekkoon ci lu yonente bi nekkoon rek salaatu wasalaam gi dafay ñëw ci yow moo tax mu ne taslimu baaxin dolli musulug yàlla mi aji des ji ba faw tëdd fu bee ko ne ah mu ne ala xayri wara yàlla na ko sotti ci kaw ngën bi dem wa ala hisbin ànd ko kuréelam ba li ko ñeel ko wa alal mustaq ak gépp aji xadoo lillaahi ñeel la yàlla maanaam képp koy jaamu yàlla rek la ci jublu maanaam salaatu salaam gi buñ ko sottee ci yonent bi ak i waa këram ak i ay saabaam yépp képp ko xam ne xadoo na rek maanaam di jëm ci yàlla maanaam bàyyeekoo na ci yàlla ba noppi di jëm ci yàlla ndax ni ñëpp ci yàlla lañ am na ñoo xam ci yàlla waaye képp ku jëm ci yàlla rek ne na salaatu salaam ñëw du dotte ko ci sa kaw ba yow moo tax mu ne taslimu baaxin doolu léegi musulub yàlla mi aji des mu ne ala xëri war a yàlla nekk ci kii nga xam ne ki ngën ci binde wa ala hisbi ko kuréelam ba loxoo ñeel ko waaye wa alal mustaq ak yépp aji xadoo rek bay ko ci kuréel boobu lillahi ñeel la yàlla nga xam ne ci yàlla rek lay nekk mu ne subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil izzati moom mi nga xam ne mooy borom ak tedd ga xammaa yi si wana loo xam ne ñu ngi ko koy melal ci ay doom ak yi caaju wasalaamu jàmm alal muslimin yàlla nekk ci ñu yónni am nu rafet lillaahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina moom mi nga xam ne mooy borom bi léef mbokk yi nga xam ne mooy wajaxtu kulliya sëñ Tuubaa tënkee ko waskrolaa fi ayamin maxdudatin di ci wax ci euh, ngëneelu tudd yàlla ak nu mu amee solo ak ngëneelu cant yàlla lépp xaside gi doon xaside goo xam ne gu xéewale la waaye gu taw féex la xaside la goo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy faral di ko jàng doo dëñ di ànd ko xéewal dooy dëñ di ànd ko mbégte waaye doo dañ di jaamu borom bi waaye doo dañ di wéetal suñu borom nga xam ne ay ngëneelam boo ko doon nett lu jeex kon yàlla nanu ko suñu borom tabaraka taala nangul ñoo ngi jéggul nag ci mboolem juumte yi ak yàqu yi ak yàq-yàq yi yépp nga xam ne e, tabaraka la doomu aadama moom lépp lu mu dugg rek man nga ne doomu aadama da ciy feeñ ak doomu aadamam ak matadeem da ciy feeñ kon di ñaan sunu borom defal nu dégg ak topp te boole ñu ci ulaayka la si ne yastamaoon alqawla fa yattabiuuna ahsanoo te yàlla na yàlla musal ñu ci wa minhum man yastamoo ilayka xataa isaa xarajoo min xindika xaalu lii la si ne uutul ilma maa saqale anifan mbokk yi xasida gaango ku ci doon ku ci jot nga ñaanal ñu seen mbokkam taale moo ko doon def dëkk fii ci Touba Kaolack fii ci Touba Kaolack di ñaan sunu borom defal nu dégg ak topp subhanaka la ilma lana ila ma alamtana innaka anta al alimul hakim rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala